di wone gaal yi bu ñuy àgg fees dell même bu ñuy dem ba jege si euh, euh, Grèce par exemple ba Italie oui. naa ay vidéo yoo xam ne garde côtiers ñoo doon euh, dégonfler Zodiac yi Zodiac maanaam dafay dafay ay gaal yoo xam ne dañ koy dañ koy pompe mais ñu koy dégonfler pour mbir mi di mais loolu yëpp da ngeen loon dañu dañu war a xam loolu ba pare nga dem ca dëkk ya gis sénégalais yi nga xam ne jot nañu jàll ba ak ñu wane réalité yi. ñu wane li ñuy dund foofu. looy proposer pour retenir jeunesse bi nga xam ne gisul ne toogaay bi fii day gën ci moom. li ñu yor di ko duggal ci fay lu leen mën a yóbbu euh, Barzak. Hmm. ndax noonu la ñuy wax. Barça mën nañ ci góor góorlu ba jëf dara. ñu ngi doon wax sànq euh, loolu loo xam ne lii gis nañ ko ci mbéy mi ba mu indi njëg yu yu yu yu metti lool ci ci ci ci dund hmm. mais un million mën nga ci jënd jiw ba ba béy sa tool bu ndaw am ci ni nga ciy am mais ci suuf ci biir Médina fii yombul xam nga accès tamit nekkul ñëpp am na ma ma tegaat la ci dara hmm. bi ma demee itali Euh, San Severo ci ci wetu bari ba dem di visiter Casa Sankara bi ma doon wax sànq mais ki ki ki leen ilif li ma wax mooy li metti mooy xale yi bu ñu ñëwee fii ba gis njëriñ bi am ci mbéy suuf li ñuy wax mooy waay man bàyyi naa bàyyi naa sa sama sama sa sama gox sama toolu maam sama toolu baay musuma xam ne njëriñ bu nii mel mën nañ koo am ci ci ci ci béy suuf. Mm-hmm. mais loolu yëpp organisation la. Mm-hmm. politique la vision la te loolu amaguñu ko fii ci Sénégal ci dëgg-dëgg. Mm-hmm. ñu wax ci leneen gannaaw mbënd mi. mbëkk mi mbënn mi muy wàllu inondation bi euh, yow ci plan décennal de lutte contre les inondations am na loo ci jot a liggéey ci gouvernement bi boobu ba léegi mënuñu am saafara ci wàllu inondation bi on parle de milliards mais population bi sentiment bi leen animé mooy milliards yooyu fan la dugg est-ce que li leen taxoon a jóg muy xeex wàllu mbënd bi def nañ ko ci mbënd bi gis nga xeex mbënd bi euh, naxaate bari na ci bañ wax dëgg itam bari na ci bi ñuy ñëw li ñu gis mooy xeex mbënd espèce u campagne la woon ndax boo yemee ci ndox mi dikk na nañu indi pompe pompe di fay ay camion yi doon pompe maa ngi fàttaliku rotation euh, fukki junne ku nekk jënd sa camion yi pompe xeexuloo mbënd en tout cas lii tubaab di wax mooy mënoo munoo ko fi dindi. da ngay génnee ndox mais doo doo doo ci génn at bu nekk day dellusi tolloon nañu sax foo xam ne 2011 nekkoon na at moo xam ne taw bi bariwul waaye campagne wu xeex mbënd des ñuy jënd ay produits phytosanitaires yoo xam ne kenn soxlawu ko woon jënd ay tan et cetera et cetera bi ñu ñëwee. ci ndigalu président Macky Sall ah, am na solo ma wax ko nag ndax euh, moom moo ne woon nañu def benn conseil présidentiel seet nag lañuy ñuy xeex mbënd mhm. ñu nekk ci maa ngi fàttaliku ñaari semaine lañu may gouvernement bi ñu liggéey boobu plan daal di ko génnee jàpp ne bu fekkee ne bëgg nañu génn ci mbënn mi fukki at war nañ ko liggéey waaye des solutions structurelles pompe bi du ñàkk ndax ba tey balaa loolu yëpp ñu ñu mën ko liggéey ba mën na dootul amati ba boog mu wàññeeku lool pompe dina am waaye benn li doon jar fukki junne rotation dama daal di ko yóbbu ci euh, defuñu sax appel d'offre ma ne bon amuñu jot def appel d'offre nañ ko yóbbu ci juróomi junne ku nekk nangu loolu di di la won di la won ni di ci ci bambula bi bi fi xewoon ñu daal di door boobu programme mu mu nangu ko c'était en septembre 2012 waaye boobu budget amagul kon ñu door ko janvier 2013 waaye ci fukki at lañ ko waroon a liggéey te 787 milliards à peu ci fukki at man ci 2013 ñu daal di ko door ci nga ci la génnee foire école. Euh, japonaise ak rond-point bi yooyu yëpp génne ko ci inondation ci la ñu génnee woon Maguilène Senghor RN1 route nationale 1 door euh, euh, ay ay bërëb yu bari daal ñu ñu ñu door di ko di di di di di jëf daal loo xam ne lii dafa doon saafara mbir bi ak ak pompage bi itam ñu teg ko ci yoon ku amutoon camion boo xam ne da ngay am li ñuy wax jauge maanaam bu feesee ñu mun a taxaw contrôler ci biti te gis ne sa camion fees na ndax nag dañ leen doon fay fukki junne ñu ñu ne pompe naa yóbbu naa fekk seen camion dara duñ ko ci def du ñu pompe sax kon yooyu yëpp ñu koy xeex door loolu génnee plan pour tegu ci yoon macha allah ci ko jëf semaine bu nekk semaine bu nekk laa la wax conseil interministériel ñu taxaw def lii lu ñu waxoon lii jëf nañu ko lii la ñu war a def di di di ko dawal waaye dañ ko war nangu créé woon itam am na solo ma wax ko ma fàttali ko ministère boo xam ne loolu moo doon liggéeyam dénk ko ku xarañ ministre Diop waaye biñ bi euh, septembre euh, septembre 2000 2013 laa dem 2002 2014 ñu bàyyi ko dañu bàyyi. d'accord plan monsieur monsieur le premier ministre c'était aussi simple que lu ñu jaaxal mooy <clears throat> xaalis bi ñuy dugal ci xeexu mbënd mi te boobu ba léegi amuñu solution on se rappelle ci conseil des ministres du 4 mai 2012 euh, euh, à l'issue de de ce conseil yaa waxoon ne. régime Abdoulaye Wade de 2007 à 2012 de 2007 à 2012 defoon na ci mbënd mi lu toll ci 72 milliards euh, Macky Sall ba mu yegsee boobu ba léegi bu ñu xaymaa liñ ci def ëpp na 1000 milliards ci xeexu mbënd mi tout le yi di dégg ne def nañu ay milliards ci xeexu mbënd mi te mu musuñoo am solution tey la waalo gën ay taw yi mu taw rek bër barki dem gis nga Kër Massar Touba ak tund yu ko war ni mu mel euh, lan mooy Euh, véritablement et de façon concrète jafe-jafe yi bu mënuñu saafara mbënd bi te boobu ba léegi ñu ngi ci dugal ay milliards. bon benn mille milliards yi ngay wax ci dëgg-dëgg man aw ma. loo xam ne lii. ba mën naa wax ne looloo am. Ah. ndax li li ma lay wax nii 2013. Mhm. plan bi le plan décennal ci boppam. waroon na jógee 2012 dem ba 2023 c'était 787 milliards. Mhm. liñ ci jot laal. ak aggul 40 milliards de francs CFA. Mhm. aggu fa te am na loo xam ne dañ ko dooroon muy dépense parce que 29 milliards la ñu jotoon a dépensé ci at mi li ci des waroon a ñëw ci at ca topp. waaye boo ko seetee du mbënd bi rek la ñuy tudd ay milliards u milliards ak kay yomb fii ci Sénégal ñuy naan tant de milliards tant ñoom dañuy bakkoo milliards <laughs> te du ñu bakkoo résultat. Mm. waay waay waay na nañu fexe. ba am ay gouvernement yoo xam ne dañuy toog di bakkoo mbënd amoon na fi amatu fi waaye jël naa mille milliards jël naa cent milliards jël naa jëm naa bitim réew indi deux cent milliards waaye ana njëriñ ana njëriñ ci askan wi ana njëriñ ci réew mi waaye du ñàkk mu am ko mu amal njëriñ ndax nee nañu mu ngi dugg milliards yaa ngi dugg fu ñu jëm milliard boo xam ne ñu ngi ko jëlee bitim réew mu war a saafara jafe-jafe askan wi. jafe-jafe yi fi des. Est-ce des propositions là parce que c'est c'est c'est tellement facile de dénoncer euh, mais euh, dangay ngay xëccu jëm ci laaj réew mi nekkoon nga fi également premier ministre au cœur même ci jafe-jafe mbënd mi euh, daañ la laaj ndaxam am nga ci pexe xëy na euh, ëllëg si biir bu ñu la dénkee réew mi. mais gis nga bu ñu ma dénkee réew mi bu neexee yàlla. li may jëkk def mooy génnewaat plan de décennal de lutte contre les inondations dafa leeroon nañ détail am ci ñu dooroon ko muy indi résultat lu tax ñu génn ci dañ koy adapté nekk ci ba noppi nag mu ñuy joxe marché ñu jox ko ñi ko mën ñi ko yelloo ma wax la un petit exemple ndax maa ngi koy fàttali mm-hmm. euh, ñi dëkk Grand Yoff di dinañ ko seede 2012 bassin de rétention de Grand Yoff ndox mi dafa bari woon ba benn mur ba daanu xam nga loolu déjà